asalaamaaleykum mbokku internet 24 actu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax ànd bi ngeen di ànd ak ñun nekk ñu leen dalal ci seen beneen numéro seen entretien. ñu am tey comme invité Mamadou Diène Gueye euh, di général nekk na responsable politique APR fii ci Touba nekk tamit doomu Touba moom lañ la àndal tey ci seen émission bi di seen entretien dañu def lu dul bàyyi ko mu daal di nuyoog mbokku internet yu festival général nuyu naa la. maa ngi lay fay soxna si di la sant di la gërëm di rafetlu aussi invitation bi merci beaucoup. Euh, général gis nañ ne jamono ji yëpp yi euh, coow li bari na lool nga xamante ni nii xale yaa ngi jël gaal mu di émigration clandestine ak yu bëree bëri yoo xamante ni mu ngi wëy euh, di am jamono ji te gisuñu benn yoon ci coowam Sénégal yëkkati kàddu ñu gis mu daal tas li nga xamante ni moo di gouvernement bi ndaxte moment bi la waroon def lii. waaw bien sûr tas gouvernement bi moom lu baax la parce que moom la ko constitution Sénégal may prérogative la. mu toog xool ba heure lay nommé ba heure lay tas gala euh, euh, immigration clandestin bi nag du tey la tàmbali yaa gën a tàmbali mais responsabilité partagée la parent yi dañ ci responsabilité ñiy dem am ci responsabilité état am ci responsabilité peut-être état responsabilité moo tax mu jóg ne day def benn gouvernement bu bees parce que indi na benn ministère boo ministère boo xam ne day saytu wàllu artisanat te xam na ne euh, secteur informel bi dafa bëri ci Sénégal bon peut-être kon loolu dina ci indi ay ay ay ay ay ay solution daal loolu laa gis mais loolu daal ñi ko séq ñëpp ñoo ci war a waxtaan ñoo ci war a waxtaan aussi euh, fexe ba loolu dakk parce que loolu gëw ma ne solution la aussi ci am réew parce que foo dem ci monde bi fi mu toll nii crise mondiale bi ma nga fa du da ngay dem Espagne rek daal di tekki loolu mënul nekk mais Sénégal tamit ñi nga xam ne ñooy état bi war nañ teg. ay mécanisme yoo xam ne si ne teg ay ay politique d'emploi boo xam ne si ne dana dëgër dëgër goo xam ne si ne jeune bu fi juddoo dinañ la mën a assurer nga am loo jàpp si réew mi ba doo bëgg a génn waaye. Euh, léegi li nga xamante ni def na ko muy gouvernement bu bees bi nga xam ne tabbu na ko ban gis-gis nga ci am. gouvernement bi li ma ci wax ñëpp xam nañ ko dama ci am lu bëri lu ma ci d'accordul wax naa ko wax naa ko si sa naataango yi bëree bëri parce que man mënu ma gëm euh, nga tëdd juróomi nga tëju juróomi fan di tëgg ab gouvernement di sàppe département bu Mbacké deuxième ville du Sénégal ñu ne Touba la tey jii ngay ngay ngay ngay ngay ngay tëju di defar loo xam ne mooy tabax Sénégal génne ci département boobu loolu man mënuma ko accepter man président Macky Sall laay jàppale yàgg ci parti bi élect opposition fi la ma fekk bi ñuy ñëwee pouvoir fi la ma fekk mais nag ay nit bu ñuy ànd ñu demee ba benn instant dañu war a xoolante ci bët waxante dëgg mooy gouvernement bi ñu teg d'accord ma ci ndax d'accord ma ñu sàppee ci Mbàkke la tax mu génne ay nit nag loolu moo ko xam waaye li ma gëm li ma mënta comprendre daal mooy lu tax président Macky Sall heure buy def gouvernement génn ci Mbàkke ak Touba. loolu nag moom moo ci mën a tontu xam nga ñun question bi dañ koy poser rek mais xam nga man du ma ko poser ba noppi tontul ko ko li am solo daal mooy man su ma ko gisee question bu ma koy poser la. su fekkee ne nag am na ñoo xam dañ naan perte gi ñuy perte la mais président mosuñoo jox dara ñun te 38000 voix lañ am euh, première élection 2012 pour yóbbu Ablaye Wade 4 appuis yóbbu ko yóbbu ko deuxième tour. bi ñu ñëwee ci élection yi passé on a 67000 voix dans le département de Mbacké boo seetloo euh, deux mille voix la am gagné département am ñun ñu am mille voix te gagné wuñu Touba boo xoolee électorat moo ëpp bu Sédhiou kon Touba am réew la te tey jii li muy joué ak ñun dama gis ne Senghor defu ko woon Abdoulaye Wade defu ko te moom moo ngi ñëw di ko dëggal di dëggal boppam ci loolu loolu nag question bu ma koy lancé di ko posé la maanaam quel problème entre ñun ak moom. parce que ñun moom lañu àndal depuis 2009 ba léegi di ko jàppale ñoo ko dugal Touba fii bi muy ñëw di gis sëñ Alaaji Baara c'était pas évident mu nekkoon xeex bu jafe ñu fexe ba dugal ko installé ko gëmloo programme am waa Touba ñu am fi ak Ablaye Wade ni mu fi sampe woon ay reeram def fi fukki at ak ñaar ñu fexe ba am ci kawoon trente huit mille voix dans l'ensemble du département de Mbacké jàmbaar yooyu ba léegi ñoo ngi fi mais mosu leen dooleel mosu leen boole ci li muy def. c'est ça le problème loolu mooy. Euh, mais tamit euh, est-ce que ni nga ni nga d'accord nii nii le fait nga wax ne avis bi nga am ni ci ñàkk a bi mu leen di ñàkk a cité est-ce que tamit sa yeneen naataango yi nga xamante ni ñu ngi nekk ci responsable APR fii est-ce nañ noonu yow. waa xam nga nag man man dama xaw a wuuteeg ñu bëri parce que man li ma tënk man dama dul tënk man bu ñu dellu woon démb ci buur yi laay bokk man dama gëm ne Macky Sall suma kilifa la mais suma nawle la réew mi amutu sant yow boo santee géy boo amee sa dëkk sa sa kër mën naa tudd ngéyeen soo amee sa dëkk man kaa tuddee daaru ngéyeen mais Sénégal amutu sant santut fay santut sàll réew mi ñun ñëpp ko bokk yow carte d'identité bi nga yoree boo ko génnee man moom laa yoree kon dans ce li ma gëm mooy que ne ñun li ma gëm mooy sama xalaat dama koy wax teewul Macky Sall laa àndal ci parti bi laa nekk ba léegi comprendre mais yeneen responsable yi peut am na ci ñoo xam ne am na lu ñuy lu ñuy lu ñuy kor lu ñuy korkoral loo xam ne si ne Macky Sall leen ko jox bëggul ñu génn seen loxo man nag Macky dundalu ma te Macky bi ma koy fal damaa am jabar ba am juróomi doom dama koy wax bët bu set comprendre nga am pexe am xaalis mën a dundal sama bopp je suis très libre ci samay pensées man. waaw lan ngeen fas yéene def li ñu fas yéene def duñ ko wax kenn du jëm guerre di wax li ngay def toi aussi <laughs> mais am na xam nga nit duñ toog ni rek quoi. ngeen laal suuti rek ñu xam duñ ko def parce que sama stratégie du ma ko wax man ak ñi ma àndal ñu ngi waxtaan ñu ngi def ay réunion mais lu nekk xam ku nekk xam na ne ñaani bañ naa moom il faut ñu tëgg ko fii dans le département de Mbacké ndax du ñu nangu. on refuse. rek ñu gis ne tamit nommé na ki nga xamante ni moo di Idrissa Seck te bu ñu gisee élection yi passé daanaka moo ko xaw a bu deuxième tour ban gis-gis na ci non ñoom ñaar dañoo def seen i deal ba ñoppi ñëw xaw ma ñu lu ñu def waaye ñun nag lu ñu ay xar yoo xam ne si ne wala ay nga këyit yoo xam ne da ñëw rek yóbbaale ñu ñoo ngi xaar pënd bi bu wuree rek sa ñëpp laa def na woon yëngu koo gis da ngay nekk dal ga bu dalee rek nga xam bu pënd bi wuree danañ comprendre li xew nañ bàyyi ba pënd xam nga man Idi ci réew mi la bokk lañ wax ba mu jël ko xaw ma ko mais man personnellement gis naa ne su ma mag yi waxoon ak man dinaa ko wax mu jaar beneen yoon bu dul bii man loolu laa gëm comprendre nga parce que man dama gis ne ñëpp ñu àndoon ak moom les premiers combattants yi nga xam ne ñoo àndoon ca xeex ba ñu ji ñu ñu jéggandoo désert bi ñëpp la Macky Sall rey comprendre nga loolu nag man bëggoon na maa gis Macky sàll ba laaj ko lu xew. lan lañ def peut-être am na lu ñu def loo xam ne bu ma ko gisoon mu expliqué ma ko mais man bu ma xoolee gisuma Moustapha Cissé Lo gisuma Aline Badara Cissé je ne vois pas Mor mbay ni Mbaye Ndiaye Thérèse Faye Diouf général Diène Guèye ci Touba gisuma gisuma gisuma tant d'autres personnes yoo xam ne si ne ñoo nekkoon ñoo nekkoon ci ci ci wetu président Macky Sall démb ak bërki démb loolu man damay jaaxle loolu Macky Sall rek moom mu ko mën a expliquer te xam naa ne balaa balaa bàyyi réew mi faaw mu expliquer ma ko li mu def. waaw mënut a ñàkk loolu moom dana ma ko wax. bi coow li bëri na loolu ñu ngi naan dina ko am ak du ko am lan waaw man de situation bi bu continuer nii du ma ko jàppale troisième mandat man général waaw man général ak ku gëm sama philosophie doo ko jàppale parce que ñun nekkuñu jaami kenn yoo xam dañ lay jàppale ngay fal say mbokk ñun ñu topp ci daw boo soxlaa ay homme de terrain wooñu man gawuma loolu. diggu comme non noo xam nga bi ñuy ànd ak président Macky Sall sax du ay nomination. comprendre nga mais nag gannaaw ba dañuy jox ay doomi réew mi ñuy liggéey bu ñu joxee bu ñu joxee département yëpp war nañ ñoo jox ñun ñun tamit boo nekkee ab jour mën a football su la sa entraîneur classé wul doo jël ballon door kenn du la kenn du la kenn du la xam loolu mooy dëgg il faut ñu wan ñu laaj ñu suñu ñu ñu may ñu ñu wane suñuy compétence tamit yéen nga xamante ni nekkee ci département bi est que booloo ngeen booloo googu noonu. xam nga parti politique bu booloo amul fenn kooku moom bu wax ku bëgg rey sab xaj da nga naan da daa ràmm comme ni ko euh, tubaab bi waxee foo mën a dem si àdduna bi les politiciens du ñu ànd day am intérêt bu leen boole ñu réunir ànd ca loola bu jeexee kenn ku ne da ngay dem toj sa bopp ji ndax nag kenn surtout parti boo xam ne structuré wuñ ko kenn xamut kan mooy kan mais coow mooy am fépp fépp fi muy am Macky Sall la nga fay nommé kon bu ñu kenn wax ne dañuy coow moo tax duñ ñu nommé loolu man gaw ma ko. déggoo li ma la wax day jël ak du jël loolu moom la mais situation politique bi ñu bàyyi man bu ñu ci àggee mu bëgg ko man du man maay dem ci terrain bi di ko xeexal waaw. yaakaaroon ne jeunes yi dañoo jóg pour fal ne moo di Ousmane Sonko. Ousmane xam nga lu ne mën a am nag fi mu toll nii situation réew mi nii ndax jeunes yi dem nañ ba inconscient ko inconscient nag lu ne mën na laa dal lu ne mën a am waaw lu ne mën a am mën nañu jékki-jékki sax accidentellement ñu fal fi koo xam ne si ne bu ñëwee day taal réew mi waaw parce que ñi yore réew mi dañ daa mel ni bal bu nekk seen loxo rek ñu koy tënk si yu ay gone di fooyee loolu tegul fenn. mën a jël réew mi de. bon man nag Sonko suivre ma ko bon suivre ma ko mais réew mi daal mën na tàbbi ci loxoy ko ne fu mu toll nii ndax ñi ko yore koy fooyee d'accord général dégg nañ li nga xamante ni wax nga ko léegi yan kàddu rek ngay tëjee ak li nga xamante ni yéen a ngi koy nar ci may ko ci njiitum réew ah di sant di gërëm rek di sant di gërëm bu baax si seen déplacement ñëw fii aussi itam jël si kii bi di sant bu baax njiitu réew mi moom suñu diggante moom dana leer ndax cokkeer ak cokkaar la mënuñoo ren ci àll ñoo àndoon 2019 parti bi moom ñoo ko bokk lu ne la ñu mën a génne ba mu des parti bi APR suñu doom la ñoo ko moom kenn mënuñu cee génne dañuy wax suñu xalaat baax <laughs> wala cool yi du yokk rek. <laughs> merci beaucoup tout à fait merci beaucoup. <laughs> merci beaucoup ami internet yi gis ngeen ko moom lañu àndaloon muy général gis ngeen kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko fii dig dajale leen di jox ba beneen numéro seen entretien.